salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ginnaaw bi ñu leen nuyoo ziar leen tey ñaanal Cheikh Mouhamadul Mountakha mu yàgg fi la ànd ak maam Cheikh Fall waaye di wax ni yéen ñi topp ci Assalaamy TV ak Assalaamy FM tey ñu ànd ak yéen nag ci spécial plateau maam Cheikh Ibrahima waaye nag maa ngi feggoo Serigne Ibrahima Mbodj ak Serigne Fallou Kébé xam naa damay bàyyi Serigne Ibrahima mu nuyoo rek bu ko defee ñu daal a tàbbi ci waxtaan bi. bismillahi irrahmani irrahim yaa ayuha allazina amanu an adulukum hala tijarati tumjikum min azabin alimin tuminuna billahi wa rasulihi wa tujahiduuna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum zalikum xayrun lakum in kuntum taalamuna yaxfir lakum zunubukum wa yadihi lakum jannatin tajrin min tahtiha anhar wa masakina taybatan fi jannati adnin zalika fawzun azim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu sina Mouhamadul ñu lay nuyu bu baax te di la siyaare tey siyaare sëñ Fallou Kebe mi ñu bokkal palaato bi waaye nuyoo boobu ak siyaar bi ñu ciy jiital Cheikh Mouhamadul Mountakha ibnu Cheikh Mouhamadul Bachir di ñaan yàlla sunu borom dolli ak dundam mu yàgg fi lool te ànd ak wér ndax damay faral di wax ci jamono bu nema ma ku gën a gëm Cheikh Ibra ma ne Cheikh Mouhamadul Mountakha ndax loole la ko waral kat ku wax ñépp dégg saa boo jëfee feeñ nag te moom dafa jëfal Cheikh Ibra ndax Baye Cheikh kan wax na ma nee na ma te mu ngi dégg toog naa dégg Cheikh Mouhamadul Mountakha mu ne man Mountakha Bassirou ab Baye Fall laa daal ne ko sama buntu kër nag ci kër Cheikh Ibra mooy sëñ Abdou Sakkoor ndax na mu deme woon ak sëñ Bassirou kon loolee dafa tax Baye yi war noo dellu njukkal Cheikh Mouhamadul Mountakha bu baax a baax waaye noonu la ñuy bu baax a baax a baax. sëriñ di Fall moom sëriñ Modou Fall Menda mi fi toog jataay bu maam Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridina Cheikh Modou Moussa Fall nag dafa waxoon kii nga xamante mooy Baye Seck Gaye Ndiaye ne ko Seck mu ne ko Fall mu ne ko man de ku may tudde doom tabañ mu yilif sax njaboot bu yóbbu bu ma ko tudde ndax ku ngeen ma tudde kat danaa ci jëfandikoo sama coobare ak sama kattan ba mu yilif njaboot gépp moom nag ay magam ñu ngi fi woon di sëñ Cheikh m Menda doon na sëñ Modou Mbenda waaye taxul muy Cheikh Ibra Fall waaye nag xalifa ak sëñ Modou Mbenda bi mu agsee ci loxoom ñëw na doon Cheikh Ibra Fall tey ñu koy ñaanal nag yàlla na yàgg te yokk te wér di wax asalaamaaleykum wa rahmatullah waaw jërëjëf sëñ Ibrahima ci nuyoo bu am solo boobu loolu rek day wane ni waxtaan moom bu ñu ci a dina kéemaane lool kon sëñ Fallou bisimilah. la ilaha la la la ilaha illallah fal la ilaha illallah your love out. La ilaha illallah. La ilaha illallah.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 di jiital nuyoo beeg ziar bi Cheikh Mouhamadul Mountakha Bassir di ko ñaanal suñu borom yàggal ko lool te wéral ko ak sëriñ Amdi Fall moom sëriñ Modou Menda di ñaanal suñu bondu seex Cheikh Ibrahima seex Cheikh Moustapha Fall Fallilu di ko ñaanal suñu borom yàggal ko lool te wéral ko di nuyu waa télé bi di Assalaamy TV di ñaanal fun fun bëgg fun bëgg a toll toll ci liggéey bi rek saa borom dimbali leen ñu am ci lu kaw seen jor amiin amiin barke maam Cheikh Ibrahima Fall di ñaanal waa ahlu xabar daas gépp den nuyu den ziar den ñaanal jàmm barke maam Cheikh Ibrahima jërëjëf sëñ Fallou ci baatu laa ilaaha illallaah bi nga xam ne yëkkati nga ko léegi ndeysaan mais sàkku si ñëpp rek ñu ñaanal ko ndax ndaw la loo xam ne daa jublu ci buntu Zikar te Zikar moom day gën ci àdduna gën it fa njëm kon sëñ bëgg nañ lool ci ci zikarulaa bi comme ni ko waxee rek ñu ngi nuyu waa xabardaas gépp ñoom nag suñu suñu suñu mag moom fa lañ bokk waa xabardaas lañ bokk si Ibrahima tey suñ bëggee xam kan mooy maam Cheikh ak ga nekk àddunaam waajuru góor ak waajuru jigéen jërëjëf Sidna Mouhamadul Mamoun ñu ngi am mbégte bu baax ak kontante bu baax ci jataay bii nga xamante ne taaru na lool waaye nag sunu jëwriñ ji ni ko ubbee ci turu yàlla kawe na lool nag ndax euh, tur yàlla moom da di li gën ci li gën te mooy alal li Cheikh Ibrahima Fall Babul Muridina ndax sunu borom bu fekkee dafa wax daan ne yaa ayyuhal lazina amanu uzkurullaha zikran kasira wa sabbixuuna bukuratan wa azila huwa allazi yusallu aleykum wa malaikatu li yuxrijukum min azulumati ila nuur waaye nag wa kaana bil muminina rahima kon tur yàlla dafa doon loo xam ne lu mënta ñàkk ci ab jullit la ndax damay faral wax kër doo murit wala jullit mooy tur yàlla ndax mooy carte d'identité ndax mooy li nga xamante ne kat ku ko tudd dugg ci diine lislaam te kenn mën la cee génne waaye mooy li nga xamante ne nag ku ko ñàkk tudd génn ci diine lislaam te kenn mën la cee dugal loolu moom la ubbee question bi nga laaj nag dafa am solo lool ci maam Cheikh Ibrahima Fall Babul Muridina maam Cheikh di doomi Cheikh Ahmadou Fall Roqeya ak jëmm ju tedd ji nga xamante ne mooy soxna maam Seyna bu Njaay gane àdduna nag ci turu Njaay ci tund njare fa la gane àdduna moom maam Cheikh Ibra moom ak rakkam ji nga xamante moom lañuy wax maam Saliou Fall waaye bi mu tollee ci jàng alxuraan kii nga xamante ne mooy waajuram di maam Ahmadou Far Roqaya ak maam Seynabou njaay noo ko dalal jàng alxuraan ci daaree maamoom muy Serigne Balla Ndiaye nga xam ne foofee kat fa la Cheikh Ibra Fall Babul Mouridina nekk jàng alxuraan mook maam Saliou Fall ci seen njëlbeen. Mhm. ca ginnaaw ba nag ban fa jógee ci la Cheikh Ibra daldi jàll dëkk bii nga xam ne moom la ñuy wax Taïba Xay jóge fa jàll ba Mbay kër Abdoulaye sëy ak kër ku ñuy wax mutt fa Mbombe Touré nga xam ne Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridina noonee kat la def parcours am ba mbooleeb lu mu war a xam ci fànni xam-xam yi mu jàng ko door a dellu si ci peggi waajuram muy maam Ahmadou Far Roqaya ak maam Seynabu Njaay ndax kat li ñuy wax sabiyan sabiyan walaw kaana nabiyan mm. gone gone la rek donte ab yonent la mm-hmm. te bu tollee ci li nga xam ne la ñuy wax jàng moom faaw ñu jàngal ko fànni xam-xam nag mm-hmm. waaye nag Cheikh Ibrahima dañu xam ne ci ak njëlbeenam mm-hmm. la maam Seynabou Ndiaye waxoon ci moom rek ndax ba mu ganee àdduna dana ah, indi naa mbër ci làmb ji de waaye nag xaw ma fu ñu bàkkoo waaye nag Cheikh Ibrahima na ba ñëpp dégg ko ndax wax na ne bi muy am fukki at ak ñett ci la waajuram wu góor di maam Ahmadou Far Roqay wàcc ab liggéey ba mu wàccee ab liggéey bi ñu ko defaree ba noppi di ko denc maam Cheikh daal jóg ci biir mbooloo ma daal ah, bu leen ko denc foofu de am ko fa nekkoon ci kilifa yi daal ko noppil fii kat gone amu fi kaddu geneen kilifa daal jóg daal ko lu muy doon doon gone hmm. moo am dogal ci baayam ne ko wax waxal fi nga bëgg ñu dencal la ko fa. ca la Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridina génn mbooloo mi hmm. daal di joxoñ ab bërëb daal ne denc leen ko fii ban ko fa dencee ba noppi maam Cheikh daal di jóg taxaw. dal ne fële kat ngeen ko bëggoon a denc jëmmi jamono ngi ñëw yoonu jàmbur lay doon te mooy fi raay bi jaar nga xam ne maam ax du Far Roqe fi ñu ko denc. Uh-huh. ak fi raay bi jaar zéro mètre. kon loolu gisoon na ko. kon Cheikh Ibra Fall loolee ba muy doon tuut tànk la ko gisoon waaye nag doon koo xamante ne bi mu matee góor xetuk sëriñ bi di ko gare si di ko xeeñ loolu nag daan na dikkal maam Cheikh Ibra da daan yéeg ci garab. bu ci yéegee ñu ñëw daal ne ko Ibrahima xanaa doo wàcc mu ne du ma wàcc ndax jant bi kat dafa am jëmm ju mu tiim jëmm joojee mu tiim kat xetam moo may xeeñ moo tax ma bëgg a gën a jege jant bi ngir xam jëmm jooje fu mu fare ndekete boobee sëñ Tuubaa Xaadimu Rasuul lay wax ci liggéey bi kon kii nga xam ne mooy man Cheikh Ibrahima Fall Babul Muridina fii la jaar ci ak ndawam ba jeexal mboolem fànni xam-xam yi mhm. door jóg nag wari wari sangam bu tedd bi xam naa di nga ñëw ci question bi. waaw ndax ndaxte foofu dafa dafa am solo li nga fa wax lool ndax euh, ñu bëri dañoo jàpp ni maam Cheikh Ibrahima Fall jàngut. Mhm. te loolu dama bëgg àdduna bépp xam ne Cheikh Fall ku jàngoon alxuraan la. Mhm. ku xamoon téere yàlla téere yàlla bi la. Mhm. ñu xam ne maam da koo da koo jàng ba pare ay waajuram jàngal ko ko. mu doog faa jógee wari ku bàqi. diggante ma ku bàqi nag maanaam lan lan nga ñu ci mën a wax nan la gisee ku bàqi ak fan la ko fekk. sidna muhammadul mamun damay faral di wax lu la réer ci diggante sëñ ak yonent bi xoolal diggante sëñ ak Cheikh Ibra ndax la ko waral kat mbooleem nu sëñ Touba topp yonent bi Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridina toppe na ko noonu ndax dafa wax kat ne ko sëñ Bamba waxal nit ñi dëgg ñu gis wax leen dëgg ñu dégg ma wala leen dëgg ñu gis dal ne ko sëñ Bamba wanal nit ñi jikkoy rasulillahi ma liggéey loole ñu texe ne ko sëñ bamb jëlal sa xalima gi nga tagg ci yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam ma jël sama nënd mi bàkk la ci ne yaanuy moom ku ci romb nag teg ko am po waaye saa bu jàddee fekk fi dëgg loolu nag misaal bi liggéey ba mbàkkee rek misaal la ci ndax da ngay romb bay fali di tëgg nga nit ñi dañuy caaxaan rek waaye saa boo jàddee ci biir ba nu yan la saako ciment nga ñukki ñukki ak moom dellu si di nga xam ne fii dëgg fi ne kon xam naa dara euh, li nga laaj dafa am solo lool ndax Cheikh Ibrahima Fall Babul bi mu jógee di wër jëmm ju tedd ji nga xamante ne mooy sëñ Tuubaa Xaadimu Rasuul jaar na dëkk yu bari ndax wax na ne ki nga xamante ne mooy maam Saliou Fall di rakkam moo xëy bés daal ne ko Ibrahima sa sëriñ boobee nga xamante ne guddi gu jot dana ñëw tiim la turam wookat ma nga ma bind ci sama ëttub ruumam nday ba wax na ne keroog bi maam Sharafal dikkee ba daldi dippi lekkat gën ca këppoon dafa daanu xam maam bu Ndiaye ñëw ba tiim ko daal sama doom jii kat lii ko tax a xam xaw lan la waaye lii du neen yàlla la wax ne ci noonu kat ci la maam Cheikh daal di jóg waxante kii nga xamante ne mooy maam Saliou Fall ne ko jëmm ji kat danaa ko wëri ci tënk rek bi mu koy wëri nag wax na ne dem na ba dugg ci ab dëkk bi mu duggee ci dëkk daal di nuyoo waaye kenn fayu ko mu daal di génn ba ci buntu dëkk ba xam ne kat du ñàkk fay nuyoo waaye waa dëkk ba dañoo dajaloo di baaw naan muy ñaan yàlla am ndox wax na ne ca ba nu def seenu ñaan ba noppi mu ne ana imaam ba ñu ne ko mu ngi nii mu ne ah ana borom dëkk ba ñu ne ko mu ngi nii mu daal di nuyonteeg ñoom ci teggin ya ne leen yéen lu ngeen doon def ñu ne ko ñun de dañuy baawu naan mu ne ko lu tax tawut mu ne ko ñun de mënuñu yore yoruñu am ndox ndax la ko war a am ndox moom yàlla sunu borom rek a ko yor wax nañ ci la ma Ibrahima Fall mu Mouridine daal ne man de maa ngi wari jëmm joo xamante ne bu ngeen ñaanoon ci barkeem yàlla sunu borom dana wadd wadd ak ndox nga xam wëri Serigne Touba waaye Cheikh Ibra am na yàqin dal ne jëmm jii di sëñ Touba waa dëkk boobe bu nu ñaanoon ci barkeem mu daldi dal ak ndox wax na ne ci la ko chef de village ba mm. ak ki nga xam ne mooy imam ba mm. ne ko ginnaaw xamuñu ko yow mi ko xam nga daldi ñaan ci barkeem ci la Cheikh Ibra dal ne jëyi loxo mi ci kaw dal ne maa ngi ñaan ci nagu bëtam gis gi ma war a gise ak moom daldi wàcc loxo yi dal ne xeexee doom ah lii xajut ci àdduna dal ne jeet loxo bi yoonu ñaareel wa dal ne maa ngi ñaan ci tëje mu am diggam ak boromam dal ne doom loolee saa ma leen ko tiflee ngeen lab borom dëkk ba ak euh, ki nga xam ne mooy imam ba dal ne kii de damaa yaakaar ne ab dof la ndax lu mu xaas rek loolee rëy ci moom ba tax mu bàyyi ko dal di xaas lu ko gën a rëy wax na ne yoonu ñetteel ba ci la Cheikh Ibra dal ne jëyi loxo mi ci kaw dal ne maa ngi ñaan nag ci barkeem ngoonuk tey gii ma jóge di wëri sëriñ bu tudd Ahmadou Bamba sunu borom dal ak ndox wax na ne jóge penku ak sow mu bañ ñu feeñe mbiram mu daal di dog aw yoonam daal di daw yi te boobu gisante wut ak sëriñ bi ci sëriñ bi waaye ci noonu ci lay wër sëriñ bi ba daal dem dëkk bii nga xamante ne moom la ñuy wax sëñ lay kan nangoo nañ ci ku nuy wax sëñ lay kan mu ne nangoo na ci sëriñ Modou Maram kan mu ne sëñ lay kan kat ba fa Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridina accès wax na ne fekk na fa sëñ Modou Maram kan ca daara ja muy jàngale alxuraan wax na ni keroog ba Cheikh Ibra Fall am na ñenn ci dong yi téyel na leen ñu tari am ci ñoo xamante ne faral na leen seen alluwe bindalaat leen wax na ne boobu fekk na ab sébb bu mag bu fa dongo yi taal Cheikh Ibra di dugg ci sébb ba ba sébb ba daal di fay dongo yi kat daal di kun kuni daal ne lii kat am ñóor mënu ko lii am ñóor mënu ko mooy ko dara newul ci yow mënoo lii wax na ne boobu kat ca la fa Cheikh Ibra nekk ba njël mu daal di dem ca barabu bu kan yi wax maam lay kën di ko wër kat di wax bayit yi di wax naan wa xaddiman uxra ala dunyaaka in kunta taaliban rida mawlaaka wax na ne keroog ba ko Cheikh Ibra di wax ba njël ci la ko maam lay kenn daal di tontu ne ko Ibrahima fii kat waa axlu barzaq ñëpp ngi fi waaye nag saa boo bëggee sa kumpa jeex da ngay dem Badar Gueye ci noonee kat ca la Cheikh Ibra Fall Babul Muridina daal di samp am xelam daal dem dëkk bii di Badar ba mu fa àggee mu ne doom ma daal ne doom yàlla seen borom kat ko xaw a dib la ndax keroog kat ba ma wéyalee sama listixaar laaj ko sëriñ yi gën a siiw wax nañ ne boobee mu won ko sëriñ yi gën a siiw ca boobee jamono nga xam ne booba fukki sëriñ la mhm. ñett waaye Cheikh Rafal nee na kun sunu borom yëkkati ba ne kii la ma ne du moom ba ca juróom-ñetteel ba neen ñu door a génne turu ku baax kii di sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul nee na ma ne kii laay wër loolu nag moo yóbbe woon ki nga xam ne mooy maam Cheikh Ibra bi mu génnee di wër sëriñ bi dem ci Ahmadou Bamba Sall ak Ahmadou Bamba moo dégg Cheikh Ibra Fall dem fa. looy looy la laay faal la yaga baax sox baayu góor yaa mat borom xam nga nag moom lii moom munu cee ñàkk ndax borom jotaay bee ko bëggee nii mm-hmm. yëfi Baay Faal lay doon mm-hmm. waaye ba léegi da dañuy dëkkalaate rek ci diggante gis gi mu gisante ak sëriñ bi mm-hmm. yaa yaa ngi ko doon expliqué wala yaa ngi ñu ko doon nettali sax mu tuub ci baatu français bi yaa ngi ñu ko doon nettali dëkkalaate ñu fi nga tolloon sànq waaw nga xamante ne Cheikh Ibra sëñ Mouhamadul na nanu xam ne Cheikh Rafal dafa koo xamante ne tegtalub sunu borom bi subhaanahu moom la am ci dégg nañ sëñ Moussa Ka daal mas nay xibaar ak jébbaloom bay wax ne yàlla mi ko moom moo ko Bamba moo ko jox say pexe yambar mu daj yàlla nag ci diina ji defe naa amut ku góorgóorlu te teg ca yoonu rek kay daj yàlla kon Cheikh Ibra Fall xam ne laataa muy ñëw ci sëñ Bamba daj na boromam ba noppi door a ñëw sëriñ bi waaye noonee kat moo ko yóbbu ci hmm. mboolem Ahmadou Bamba yu mu jaar muy Ahmadou Bamba Sall hmm. ak mboolem Ahmadou Bamba boo xamante ne Cheikh Rafal Babul Mouridina jaar na fa ba ni mu gisanteeg Serigne Adama Gueye ak Serigne Makhtar Touré dal di hmm. dafa mat a leeral ndax daa bëgg nga leeral ko ñi ñuy seetaan ci bi mu gisee gisanteeg Serigne Adama Gueye ak Serigne Makhtar ndax dañ si Moussa daa daa wax ni Eh, Cheikh Mokhtar Touré nga yónni joor wala Cheikh Adama Gueye nga yónni joor. Mhm. Mokhtar Touré nga mhm. yónni ko jëm Mbàkke Kajoor. Mhm. Cheikh Bamba yónni ko ca buur Cheikh Ibra topp ci ak ay pexe. xam nga topp ci ay pexe. yoonu ku ca bëgg dara faaw nga def ay pexe ngir am ca dara. ndax fi ne nii misaal ci bu gàtt rek. sa boo bëggee mu jàng alxuraan dangay ngay defi pexe. defi pexe kat mooy tax nga jëlee ko fi mu nekk yóbbu ko ca daara ja. kon. ku bëgg dara sonn ci. ku bëgg dara sonn ci. ndax Cheikh Ibra day faral di wax daal ne kër kër kat mooy maye kër ci dara te loolee ca la taxawoon ba tax mu topp kii nga xamante ne mooy Serigne Adama Gueye ak Serigne Makhtar Touré wax na ne keroog kat ba mu agsee ci sëriñ bi nga xamante ne eh, ñeenti fan ci weeru koor ci la ñëw ci kër sëñ Bamba Xaadimu Rasuul waaye wax na ne keroog bi Cheikh Ibra Fall agsee la mu njëkk jëf ci biir kër sëñ Bamba mooy jël dara gi sëriñ bi di jullee di ko lal waxtu wu jot. Cheikh Ibra Fall daal ñëw tàllal del gi lalal ko sëriñ bi wax na ne ba am bis am kenn ci mag ñi daal wax sëñ Adama Guèye ne ko jëmm jii kat yor del bi na ngeen nangu nangu leen ko ci moom ndax moom kat du foon suuf kon xamut fi xibla féete wax na ne ba waxtu wa dellu see jëmm joojee ñu ko waxoon daal di jàpp ci der bi xëccante ko ak Cheikh Ibra bi mu ko xëccante ak Cheikh Ibra sëñ Tuubaa daal ne gees ne ko Ibrahima bàyyil wax nan la kat fii ci ñun julli ak koor moo fi maye dara wax nañu ca la Cheikh Rafal daanu jël bu métti ci sansi bi mu daanoo jël bu métti sëriñ bi taxaw di ko xool di ko xool ba Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridina dalee dal bi mu dalee kat mu ne ko ah jàng naa Fatiha te Mbàkke yow laa jëkk xam ci Fatiha ne ko lii ma bëgg bu fekkee amul ci yow ñaanam ma daal di jàll gànnaar wax na ci noonee kat ci la sëriñ Tuubaa daal ne gees xool mag ñi mhm. ne leen julli ak koor ku mu indi fii ci ñun bu bés pencee da nga xeeb sa bopp kon liy maye dara ci biir kër sëñ Bamba mooy li fi Cheikh Rafal indi muy ibadatul xitmiya ndax dana doon damaa ñëw ci biir kër sëñ Bamba fekk fi ibadatul ulumiya muy ay téere nga xam ne dañu jàpp ne diine ji ku jàngut doo jëriñu nee na doom ma indi leen ibadatul xitmiya te nag dégg nga sëriñ bi waxii la man xadara yowmul baaxi wa duriba sirata faw xanaari wa kaafatan walaw jawaa wal xumma naada munaadin ayda ahlul xidma mhm. waaye nag lil muslimin fa ajaabahu ajmain kon Cheikh Ibra Fall mu indi da di lu wér ndax mooy cislaayu diine nag waaw moom sax da ko wax dane saa borom dama may fukk may ak ñaar mu indi ñaar rek waa àdduna attanuñ ko mm-hmm. moo jëli ci des yëpp daxeñ delloo fa ma ko jëlee woon mm-hmm. euh, diggante maam Cheikh Ibrahima Fall ak Sëriñ Tuubaa comme ni ñu ko indilee mm-hmm. waaye mag ñam fekkoon sa Mbàkke Kajoor ak ñaateelu taalibe la ci sëriñ bi ba ko fay fekk xam nga léeg nga dégg ñu ne juróom fukkeelu taalibe la waaye loolu ku ñuy wax njuuga xëri tuddoon kookoy juróom fukkeelu taalibépp sëñ Tuubaa Xaadimu Rasuul ndax wax na ne keroog bi nga xam ne ñu ngi jóge fii ci mbakke di toxu Daaru Salaam bant néeg ba nga xamante moo leen doon sampal sëriñ bi pax ya moom njuga xëri moo ko doon gas mu koy gaskat Cheikh Ibra Fall fekkewu ko waaye ba Cheikh Rafal demee uti bant yuñ ca samp bi mu dellusee ba bëcc bant yi wax na ne benn pax ëppul benn pax yéesul waaye nag Cheikh Rafal nekkin gi nga xam ne moom la nekkoon ci kër sëñ ba mooy nekkin gu rafet ndax sëñ Moussa Ka dénk mu ne yéen doo liggéey fanaane root mhm. balaa ginaar di kurkureet moo ko xewal dawul doxi Cheikh Ibra nii la nekkoon ci biir kër sëñ Bamba mhm. ndax bu nu fàtte kat Cheikh Ibra bi muy tërbiyee ci biir kër sëñ Bamba daan na rootale sëriñ bi aafee mhm. ak saate ak ngaabu aafee googu sax danaa ci ñëw ndax fa la gisanteeg soxna bu Bousso mi nga xamante ne mooy waajuru sëriñ Fallu Mbakke wax na ne keroog ba mu gisee teg jëmm ji nga xamante ne mooy soxna Awa Bousso mhm. ne ko ah noo tudd nee na mu ne ko Awa mu ne ko ah naka nga sant nee na mu ne ko Bousso na Cheikh Ibra dox juróom-ñaari jéego daal di wàññee ko ko ko ne ko Awa mu ne ko noo sant mu ko Bousso Cheikh Ibra di dem wax na bi mu fii ci Mbàkke dafa yëglu ci ginnaaw sàkket bi mhm. bi mu yëgloo sëriñ bi ñëw ba fi toll ak moom daal di ci ab baara moom daal ne ana ko toll foofee xanaa Ibra Fall la mhm. nee na mu ne ko de waaye nag Cheikh Ibra Fall da daan wax nu na sëñ Bamba di wax nu na kon ñaar ñeekat kanu doon kenn xamul leen nee na mu ko Ibra Fall mënoo bàyyi kat bu nit ñi tëddee ngay kun kuni ndax kenn ku ci nekk fexe nga ba xam li ci biir ndabam te yow li sa biir ndab mënu koo xam nee na mu ne ko Mbàkke damaa rooti woon kat fee ca aafe waaye fekk naa fa soxna soo xamante ne kat yàlla sunu borom xamal na ma ne ma xut bu samaanu jamono jii di ñëw kat ci moom la war a bàyyeekoo dal ne Mbàkke kooku kat xutbu bu saf xorom la ndax bu feeñee ca naari di xutbu bu feeñee ca pëli di xutbu fu mu feeñ du ko tere doon xutbu te Mbàkke yéene naa la ko ndax suñu yoon waa ngi door a jóg ndax kooku Mbàkke xutbu bu saf xorom la kon ñëw biir gi nga xamante ne moom la sëñ Fallou Mbàkke ñëw ci biir kër sëñ Bamba mm-hmm. wane nga Cheikh Ibra la moo tax ñu déggoo te te te te sa maam Cheikh sax daa wax ni bu njabootu sëñ Bamba yëpp bàyyi ko ki fi ki njëkk a wuutu ki ki njëkk a wuutu sëñ Bamba euh, xam nga kon kon kooku gis na démb tey door a ñëw. Mhm. kon sëñ Ibrahima euh, dañ léegi loolu moom ndeysaan. Mhm. maanaam sama xol daa sedd sax te mënatuma wax. ndax mhm, maam Cheikh Ibrahima fi mu maanaam moom daa waxal boppam ne. ni ma waa àdduna ni ma wa laaxira xamoon. Mhm. bu ma ko waa àdduna xamee woon kon duñ sonn mhm. waaye ndokk yàlla ba mënuñu koo xamee mhm. ndax moom ay mbiram kenn mënu koo xam waaye diggante suñ tuwaa ak maam Cheikh Ibrahima Fall nga ñëwoon ñu si diggante suñ tuwaa ak maam Cheikh maam Cheikh Ibrahima Fall waaye dañoo bëgg nga ñëwoon ñu nag xam nga lii diggante suñ tuwaa ak maam Cheikh Fall bi di di di di di wëri suñ tuwaa la woon waaye diggante suñ tuwaa ak maam Cheikh Fall nañ doon doxee léegi foofu nag ba nga faa tab danga bëgg suñ fàllu nga tuddal ñu yàlla bakkal ñu maam Cheikh Ibrahima Fall ndax ku ku ku yeyoo bàkk la ba àdduna bépp yëg ko waaw laa ilaa ilaa laa Cheikh Ibrahima waaja Fall laa ilaa ilaa Cheikh Ibra yaay waaja fala ila ila la fala ila ila la la ila Ibra yaay waaja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 jërëjëf euh, sëñ Fallou ci turu yàlla yu neex wi am solo lool macha allah bëgg nañ lool waaye di wax ni mbokk yéen a ngi ànd ak ñun ci asalaam TV waaye lëkkaloo koog rajo bi di asalaam FM 99 point 0. waaw sëñ Ibrahima ñu bëgg ñëwaat nag ci diggante maam Cheikh Ibrahima Fall xam nga dañoo ñëw ci diggante suñ maam Cheikh Ibrahima mu doon wëree suñ Touba nga nga nga nga indil ñu. ni mu demee ba ba ni mu ko fekkee Mbàkke Kajoor mm-hmm. waaye ni mu doon dund ak sëriñ bi nag Cheikh Ibra Fall li mu doon dund ak sëriñ bi dafa dafa baax nit ñi xam ko waaw nan nan la doon dund ak sëriñ bi. ndeysaan sëñ Mouhamadul Mamoun ñu ngi am mbégte bu baax ak kontante bu baax ci question bu am solo boobu ndax bi Cheikh Ibra Fall Babul Mouridina ni mu doon dund ak sëriñ bi boo ko tuddee rek mboolem kuy tuddee ab taalibe te bëgg a jëriñu ca nga nekk loolee war nga koo teewlu bu baax a baax a baax te xam ne da loo xamante ne ku ko dégg. Mhm. boo ko jëfee jëriñu. xam nga loolu la ma la la ciy wax rek mooy. Mhm. Cheikh Abdou Karim Mbacke mu Sëñ Fall dane hmm. yoon bi kuñ fi wax ne am nga dara tax yoroo doxinoo yoroo doxinu Cheikh hmm. Ibra jàppal ne dañ lay jaay. waaw moom la ñu dégg. waaw te te dafa am kilifa gu bari ku kilifa gu mag sax ci yoon wi. Hmm. mu mos a nuyu mu ne ma noo tudd mu ne ko Modou Maone. waaye nag ab Baye Fall laa ma ne ko man nag Baye Fall laa waa kër Sëñ Cheikh Fall laa. mu naan ma da nga naan ay Baye Fall lan. te Sëñ Cheikh ummi Sëñ Cheikh ummi mu Sëñ Fall dama mos a wax dama ko mos a nuyu. mu it mu fekk ko këram. mu ne ko Mbàkke de ñun ay Baay Faal rek lañ mu ne ko man Mbàkke de ma maag suñu tàkku mi ngi toog ay Baay Faal lañ bëgg doon moom ma ko wax si làmmiñu boppam kon kon loolu nag moo tax ma la képp ku bëgg a jariñu Sëriñ Tuubaa faaw nga yor doxinu Cheikh Ibra mhm. léegi nag dama bëgg nga ñëw ma nag Cheikh Ibra nu mu loolu nga wax noonu lu wér la te dinaa ci indi loo xamante ne ku ñuy wax sëriñ Modou Wade jës bu wax na ne dafa nekk kat kër sëñ Moussa Sall Mbàkke mhm. wax nañ sëñ Daam Abdourahmane Lo daal di ñëw fa di siyaare si sëñ Moussa Sall nee na mu daal di nuyoog sëñ Dame Abdourahman loo daal di wëcc téeméer ci loxoom nee na mu ne ko yow xanaa ab Baay Faal nga nee na mu ne ko waawaaw ci defari Cheikh Rafal de ci laa bokk mu ne ko waawaaw ndax defari Cheikh Rafal de moom rek a xam lii. Mm-hmm. nee na daal dem bi mu wàññee ko daal di jaaraat fa nee bi mu ànd ak sëñ Moussa Sall ñuy dox ba mu yàgg. Mm-hmm. sëñ Modou Wade Jazbou nee na man ak sama mbokk taalibe ba ma àndaloon ñu daal di laaj leen. ne leen ñi sosoon yoonu murit ana nu ngeen ko sose woon nee na sëñ daa di dox ba ci taatu daqaar daal di àgg suuf bi mu àggee suuf daldi rëdd aw rëdd ci suuf dane yoonu murit kat nen ko sose woon muy ñun dañoo gisoon sëñ Tuubaa mu doon ku sell lool baax lool mën alxuraan lool ragal boromam lool ne ñu xool ko xam ne nag moonu gën biir ak bitti te bu buñ ko toppee rek danañ jariñu nee na looloo tax ñu topp ko waaye nee am bés am ku jékki-jékki dal di ñëw ca kër ga nee bi mu jubee sëriñ bi daal di summi ay dàllam di raam nee na loolu jaaxal ñu lool ndax mosuñu koo gis nee bi mu agsee ba ci sëriñ bi daal di jël ab jéem këpp ko ci loxoy sëriñ bi nee na loolu gën ñoo jaaxal ndax bariwut luñ koy gis nee na ba mu yàgg mu daldi dékk ay loxoom sëriñ bi ne ko jébbal naa la sama bopp àdduna ak alaaxira ne ñu gën a jaaxale ñu gën a jaaxleeti mm-hmm. ndax kàddu gu Cheikh Rafal wax muy jébbal naa la sama bopp àdduna ak alaaxira kon na nanu xam ne kat yoon murit lii ñu am mm-hmm. ba di ko tiitaroo loolee kat ma nga jóge ci Cheikh Ibrahima ba Baabul Muridina mm-hmm. diggante Cheikh Ibrahima nag ak kii nga xamante ne mooy sëñ Touba da diggante bu yaatu ndax mooy diggante boo xamante ne la taxaw na ñëw Cheikh Ibrahima Fall Baol Mourideen ci biir kër sëñ Bamba mm-hmm. mooy jariñ jullit ñi waaye nag jariñ murit yi mm-hmm. waaye jariñ ñépp nag mm-hmm. ndax la ko waral kat moom Cheikh Ibrahima Fall Baol Mourideen wax na ne am na bis boo xam ne dafa ñëw fekk sëriñ bi muy delloo mag ñi ci yàlla ba jataay ba tàng lool ndax sëriñ bi bari na lu mu ko daan def wax na ne ci la Cheikh Ibrahima Fall daal di agsi daal di boof ca ginnaaw mbooloo ma ba mu yàgg mu ne ko ah sëñ Bamba saabu bi doy na ndox mi doy na tàggat yi bari na. Mm-hmm. ne ko fóote woo say wagg waggi jàmbur ngay fóote fóotal nit ñi kat moo gën yi nga leen di wax. Mm-hmm. ndax nit ñi kat mënuloon seen bopp dara. Mm-hmm. ndax bu nu mënuloon seen bopp dara kat toog dëkk ba nu bàyyeekoo. kon fóotal nit ñi. wax na ni jataay ba ca changé ci la sëriñ bi daal di muuñ ba kimiñ gi daal di feeñ. mu daal ne tasaaroo leen ba beneen yoon. kon solution murit yi seen digganteeg sëñ Bamba kookee Cheikh la. ndax diggante mbaaxaan ak kii nga xamante ne mooy sëñ Bamba. Mm-hmm. bari na lu ci Cheikh Ibra wax. Mm-hmm. ndax Cheikh Ibra dafa dal ne ceddokat ma ngi mel ni am mbott. Mm-hmm. nee na mbott nag saa bu gisee ab déeg mu doon ndox mu rafet te set lool. nee day jékki-jékki daal di tàbb ci biir. nee na bu tàbbee ci biir nag ngoox ngooxee mooy bari. waaye nag balaa bàyyi. tilimal déeg ba moom. daane ceddo yi nag noonu la nu mel ak ab sëriñ. moo tax bi ñu rëttalee ut ci sëñ bamba ma dox seen diggante ak sëñ bamba ndax man Ibra Fall attan naa lépp na lépp yem ci man. te daa yoroon daa yoroon ci waaw ñoom ñoo yoroon bari na ñi mën loolu danañ ci ñëw. Mhm. keroog bi nga xamante ne moom la mbaaxaan ñëw ci sëriñ bi di ko jéggulu ne ko la ma yoroon kat sànni naa ko bëgg ñëw ci yow nag bokk ak yow li nga yor. Mhm. wax na ni ñu bari ci mag ñi daal ne ko ah Mbacke mbaaxaan mii de bu ko jéggal mhm. ndax boo ko jéggalee kat ñu ñëpp dana la bàyyi te loon daal ëllëg yaanu ko teg hmm. wax ne ci noonu kat ci la mbaaxaan daal di rëtal jëm kër Cheikh Ibra mag ñi daal di waxtaan daal ne Cheikh Ibra mbokkum démbam la woon hmm. ne leen ko jiitu ci moom hmm. ndax buñ ko jiituwut ci moom kat dana ko jéggal te bu ko jéggalee kat indi ko ci kër sañ Bamba keroog ba mag ñi agsee kat Cheikh Ibra Fall ci ab sën la leen dalal da leen a dalal ci ab sën bi mu leen fa dalalee mag ñi toog ba mu yàgg mu ne ah yéena ko wax de ñu ne ko waaw Fall mu ne ah kon bismillah jàll si leen ci kër gi daal di dugal leen ci biir kër gi daal di woolu ñeen ci dong yi daal di leen kat dem leen ngeen maasale ko te suuf sa nekkoon ci biir di suuf su rafet génne leen ko aj ko ci kaw mm-hmm. mbalit ma ngeen gas am pax dugal ko ci biir. Mm-hmm. bi ñu ko defee ba noppi maam Cheikh daal di génnaat daal di ñëw toog ci biti daal di bismillah wool leen ma gan yi ñëwoo gan yi mu daal di ñëw ñu daal di toog mu ne ah bu njëkk nanguwu leen ci woon a toog ñu ne ko Fall daa taxoon. mu ne ko kon lan moo tax ngeen toog si ñu ne ko ah fii na nii de set na. Mhm. nee na mu ne woo leen ma mbaaxaan ñu woo mbaaxaan mu ñëw mu ne ko tudd naa la Abdul Xafoor. Mhm. jàmm bi yàlla sunu borom jéggal. daal ne doom yéen xamul leen ndax wax ju jëkk ja tontu ngeen seen bopp. Mhm. ju mujj tontu ngeen seen bopp. dal di jàpp ci loxo mbaaxam indi ko ci Serigne Bamba. bi mu ko indee kat wax na ne dugal ko ci ba ci biir kër gi mbaaxaan daal di nuyoog Serigne bi. nee na mu ko Ibrahima mbaaxaan mi kat bi muy njëkk a ñëw meloon nii ndax bi muy ñëw karaw la indaale woon hmm. te bi mu dellusee see nga koo wat mu ne ko ah sëñ Bamba tudde naa ko Abdul Xafoor muy jaam bi sunu borom na ma jéggal hmm. nee na mu ko ah Ibra Fall kon layal ma mag samay bokk ndax ñii kat nee nañ bu mu dugg ci kër gi hmm. nee nañ ci noonu nag ci la ko Cheikh Ibra Fall ko ah Bamba yaa gën yaa gën Moussa te kii mbonam gi àggul ci na ne ko Mbàkke jéggal ko wax na ne ci noonu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 فليقل لا إله إلا الله فليقل لا إله إلا الله فال محمد رسول الله لا إله إلا الله فليقل لا إله illallah la ilaha illallah la ilaha illallah mami Mudu Fallu Faal garminga la ilaha illallah masa bige kumba faal yenn waay sëriñ Seex Faal ndigal koloba Seex Musaa Faati kolo na laay sëriñ Seex Faal ndigal koloba Seex Musaa Faati kolo na laay fan jaga la ilaha illallah ta yóbbu mbaaxaan te xafoor yoo tax ba xool lu dul foor yoo tax mu sonn yoo mboor foo yoo du googu laaji pexey fal njaga laa ilaaha illallah muhammadu rasulullah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 am de faal Seex Mustafa bayu góor mat borom am de faal Seex Mustafa bayu sëñ Fall Kebe waaye jërëjëf Serigne Ibrahima Mbodj waaye jërëjëf ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi ànd ak ñun ba di teewlu jotaay bi waaye sëñ Ibrahima da nga da nga ci ponk boo xam ne dafa am solo lool ci moom Cheikh Fall li mu jëlee mbaaxaan comme ni ko sëñ Fall waxee léegi ci way wi yaa jël mbaaxaan yóbbu ko ca xafoor yaa tax ba xol ba dootul fuur yaa tax mu sànni yetu nguur jël yetu ngëm di laaj pexe te day mel ne Cheikh daa waxoon ne lu yàqoo kër Sëñ Bamba su ñëwee sama kër gi baaxee waaye lu yàqoo kër gi nag moom moom fu baaxee moom a te kon loolu misaal mi daa feeñ ci mbaaxaat waaye gis nga maanaam daja am question boo xam ne mënut a ñàkk ko ci mooy Cheikh ak doomi buur yi ndax ku ci mel ne ñoom ñoom ñoom gànciree ki làll faa ñëw na maanaam euh, sëñ Modou Mamoun nga tàbbee di lu am solo mm-hmm. ndax Cheikh Fall ak doomi buur yi moom moom rek mënuñ ci ñoom dara. ndax ndax foofu. ma hmm. dagg la tuuti rek bu baax. ndax nit dañ ne koo naw wut. Hmm. doo ko doo doo ko jox sa alal baa doo ko jox sa doom baa doo ko jox li nga gën a fonk te doom ñëpp xam ne dafa sax ci dafa sax ci xol. Hmm. léegi Cheikh Rafal maanaam nim nim nim meloon. loolu la ko buur yi naw nawloo woon wala ci yax yax gi mu bokk ndax day xool nag Cheikh Rafal daa bokk ci yax gu rëy. ndax wax nañ ni su toppatoon baam ba buur dina ko doon. kon mu topp baam ma nag. te te wax suñu ma ne ko mm-hmm. nañ la jiñ ku néegi bokk mm-hmm. jiñ ma ku ami bokk moo mm-hmm. naan la yaa ñi moom xam nga yaa ñi moom nag daa gën a wóor maa leen di moom te seere wàll dana suñu bàmba yaa ñi moom léegi nag ci ci ci ci buur ci buur ci ci doomi buur yi uh-huh. waaw nga ñëwlu foofu ci doomi buur yi booy xool maam Cheikh Ibra dañuy faral di wax dal ne ku képp koo gis rek mu daal di ñedd saw des nee na ku ñedd saw des nga wàllu ko sa jàngoro te Cheikh Ibrahima mu Babul Mouridina dafa def lépp ci biir sëñ Bamba mm-hmm. loola waral moo mënoon a jariñ doomi buur yi ba noppi mën leen a mm-hmm. ndax eh, ku ci mel ni soxna gañ siri mm-hmm. ak soxna Lalla ak soxna si Mbóoj nga xamante ne gelluwaar la woon ak Cheikh no Debba Sarr nga xam ne ak soxna Mend nga xam ne Cheikh Ibrahima Fall bari na doomi buur yu mu yu mu yoo xamante ne da leen a boole woon dajale woon ci biir këram ndax wax na ne am na bés boo xamante ne soxna yi nekk ci biir kër gi yëngu lool la leen taxoon a yëngu nag dañ doon wax ci seen biir mhm. ku gën a rëy ab yax nga xam ne yax bu rëy lañ doon xëntuwoo seen biir mhm. wax na ci noonu ci la leen maam seex daal di woo ñu daal di ñëw mu jox leen dax da leen ko jox ne leen génn leen ci ginnaaw kër gi ngeen utal ma mhm. ay ginnaaw kër wax na ne bi ñu ko utee ba indi ko ci maam Cheikh Ibrahima Fall Bawul Muridina mu daal di loolaat soxna la ne ko la mu ne ko faal mu ne ko lii ginnaaw kër baadoola la wala ginnaaw kër buur nee na ko ah faal loolu kat xam nga ne xamuñu ko yaa koy xam mu ne ko ah ginnaaw kër kat bu xasee ba génn ci nit acam sànni rek ngay mujje acam sànni rek kon yax bu rëy sànni rek yax bu rëy mën ta xantawoo li mën ta xantawoo mooy ngërëmal sëñ bamba daane doom sàkku leen ko kat kon Cheikh Ibrahima Fall babul muridina li nga xamante ne moom la xërtaloon ci doomi buur yi mooy ñu sàkku ngërëmal sëñ bamba ndax xam na ne loolu rek moo leen di jariñ ndax dafa rëy rëy gi mu rëy nag moo waral sàkku ngërëm jafe ko waaw bisimilah jërë jërëjëf rëy gi rëy gi mu rëy moo tax maanaam sàkku ngërëm eh, daal di jafe ko lool waaw xam naa ñu dal di jàll ci beneen question rek ndax temps baa ñu waaw ndax suñ caméraman mu ngi jox sax li ñu dese ci temps bi waaye eh, kon dañuy dañuy ñëw ci diggante maam Cheikh Ibrahima Fall ak xiin yi waaye dañu ne sax diggante maam Cheikh Fall ak xiin waaye diggante yoonu Baye Fall ak xiin yi ndax ñu bari dañ ne xii ni jërut mi tàbbi ci ci ci yoon wi waaye ñii ne nag ne loo xam ne lu lu fi lu fi ba woon la jërëjëf sëñ Mouhamadul Mamoun xam nga àdduna lu baax daal di yokk te lii nga xamante ne mooy xiin bu ne xiin ak yoonu murit waaye nañ ne xiin ak diiney lislaam ndax talaal badrul na amoon na ma dinatul madinatul munawara mm-hmm. te ba mu amee kat dafa ànd ak ay tabala mm-hmm. te terewut ka saxaaba yi doon tamaayalu tamaayolu mooy yëngal seen yaram mooy ñukk ñukk gi Baay faa yi def waaye Cheikh Ibra bu nu fàtte ne xiin mu ngi ko gisee ci sëñ Touba Xaadimu Rasuul ndax Serigne Touba bi muy nekk ci yenn Jolof wax na ne dafa am bés mu daal di génn ànd ak mag ñi ba dugg ci benn dëkk bu ñuy wax wenn mbel ba sëñ Touba duggee ca dëkk ba yëngu ga bari lool mu daal ne xew fi ku nuy wax sëriñ Ali Aram Lo di waajuru Serigne Basiru Lo Ali Aram ne ko mbakke ñi kat dañuy cant mu ne ko ah, ali aram cant googu de moonte yéen la gën a war ndax ñi kat lu nu am bay cant yéen li ngeen am moo ko gën a moo ko moo ko gën a foor te moo ko gën a rëy kon cant googee kat yéen la gën a war sëñ ali aram loo daal di defar génn xiinam bu xëyee tëgg bu jant bi duggee mu tëgg bi mu koy def ba benn bés mu war a gane ji bokkam yi nekk Touba ñu ne ko na nga ñëw de waaye sa xiin boobee bu ko fi indi mu daal di jël doomam yebal ko ci sëñ Touba Xaadim Rasul ne ko demal kat nga waxal ma ko dal ne ko mhm. lii may def bu fekkee daa baaxut ba samay bokk di ma ko aaye na wax mhm. bi doom ci accès ba nuyonteeg sëñ Tuubaa Xaadim Rasul nee na ko ana sa baay nee na mu ne ko mbàkke ma nga fa ak génn xiinam nga mu yoroon rek mu ne ko mbaa yokk na ko ba muy juróom-ñaar mhm. nee na mu ne ko déedéet mu ne ko boo demee ne ko na nga ko yokk ba muy juróom-ñaar boo demee waxal ma sa baay ne ko sama cantukaay yi ñu may cant ci àdduna ku ko bañ a dégg ba barsàq ca àjjana doo ko dégg sëñ Tuubaa Xaadimu Rasuul ndax wax na ne géwéli maam Cheikh Rafal yi nga xamante ne ñoo santoon seen te ku ñuy wax Masiru seen jiite leen woon cëpp leen dédd fajaru gàmm gi ñu ñëw siyaare maam Cheikh Ibrahima Fall Babul Muridina def seen yëngu ba noppi dugg ci biir kër gi kenn ci mag ñi daal ne ah ñii da jaruñ ñuy gis maam Cheikh ndax géwél yi baaxuñu maam Cheikh daal ne xëy xëy doom ah doom ku leen amut baaxut ndax doom ku baax bëgg nga leen am kuy jëf-jëf ju baax bëgg nga illallah muhammadu ya rasulullah la ilaha illallah muhammadu ya rasulullah lay lay faal ilala muhammadu ya rasulullah ya rasulullah ya habiballah la ilaha illallah la illallah illallah illallah la ilaha illallah la la la la tubaarkalla sëñ Fallou Kébé ndeysaan jotaay bi laa daa neex daal ba ba noppi laa bàyyi xaale ndax di di waxtaanee maam Cheikh Ibrahima Fall bari ñu tudd yàlla moom da day lool da moom daal kawe na waaye sëñ Ibrahima da ngaa ñëw ci ponk bu am solo mi yoonu Baye Fall ak xiin te ñun de dañuy dañuy doog kanamu kilifa di di bàkk ay xiin kon jàpp nañ ni su doon loo xam ne bokk ci Baye Fall gi kon dañ ñu koy aaye kon foofu moom man li ma jàpp ba jàpp ni mooy daal moom lu ci bokk la ndax suñu baysaar daal daan yor xiinam nag ca ca njaareem buñ ko fàttee yor xiinam di bàkk di sant suñ tuwaa kon xiin yi dañ ciy sant maam Cheikh Fall waaye dañ ciy sant suñ tuwaa ndax tëgg ci xiini suñ tuwaa yeeg maam Cheikh Fall yi moo gën nga koy yëngu jee feneen xam nga loolu Cheikh Fall dafa kàddu gu am solo gum ci wax mm-hmm. ndax dafa xalaat ne doom kat sama xiin yi ak xiini iblis yi rek a yem mm-hmm. daal di dem waaye nag la nuy bàkk moo ute mhm. ndax bii kat day bàkk yàlla bii di bàkk iblis ndax dégg nga loolu moo tax jëmm ju baax di sañ Mor Mbay Cissé buñ ko mësaana wax sabar mu ne ah mat naa seetaan de dane waaye nag na nga leen dànd dala ñuy tëgg bu ñuy tëgg ndax xam nga lu ñuy wax nee na ñu ne ko de mu ne dañuy naan gaa yi naar yi wàll si leen mhm. nee na bu ko defee nit ñi dal ni kër këpp dal di ñëw dugg mhm. nee na mu dal di soppi tëggin wi dal ni borom nday ji bon dugal borom nday ji bon dugal nee na nga gis ku ne bërét ne lay dal di dugg ci biir géew bu ñukk ñukkee ba ñaq daal di génn mais ñu soppi tëggoo naan ko alku nga nag alku nga nag mhm. moo tax mu ne lu mat a seetaan la mhm. waaye nag na nga dànn mbooloo mi mhm. ndax nee na boo leen jegee rek iblis ruux la ruux gi nag mooy boo leen jegee da nga yuqamtiku ngir xool waaw te boo yuqamtikoo ngir xool rek boo xoolee da toska toskaréwu moo tax mu daan wax lu mel noonu waaye loo gis rek yëg ci yàlla ndax Cheikh Ibra Fall moom moom fa mu féete woon dafa jàpp ne yàlla sunu borom bindu dara ci ak ndax rabbana ma xalaqta haza batina subhanaka mm-hmm. lu mu gis rek yéem ci yàlla wér na mm-hmm. waaw jërëjëf suñu Ibrahima jërëjëf suñu Fallou Kébé di fàttali mbokk yéen ngi ànd ak ñun ci Assalaamy TV waaye nag ñu lëkkaloo ko euh, rajo bi di Assalaamy FM 99 point 0 waaye suñu Ibrahima ñëw ci ponk bi nga xam ne Cheikh Rafal ni mu jàngalee nit ñi mm-hmm. éducation xam ne damay wax ni jamono ji nit ñi dañoo dañoo manqué am am am njàngale da daa raf lool ci suñ suñ jamono ji ñu toll te Cheikh Rafal mu bëri ci loo xam ne waxoon nañu ko te jamono yi ñoo ngi koy gis te te te ni mu ko jàngalee nag te bindu ko ciy téere loolu la bëggoon nga dikkal ma ci daal. loolu Seydina Mouhamadul mhm. lu am solo la. muy Cheikh Rafal ni mu jàngale woon ak taalibe te nekkut ci ay téere ndax nanu maase xam ne Cheikh Rafal képp koo gis mu di ko tuddoo te teew ci bërëb mhm. wane wu fa yar mhm. wane wu fa teggin wane wu fa xam kilifa xamal ne jëm joojekat daa jox ci Cheikh Rafal waaye dond ci moom dara. jox ci Cheikh Ibra nag lu baax la waaye dond ci moom dara mooy tax a jariñu ndax Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridina kat danaa wax dana doom taalibi day yor lewtuk muus daal ne muus doom kër goo gis tabaxu ko dërëmam demu ca waaye nag saa bu duggee ca kër ga bërëb ya gën a neex te gën a dal fa lay noppaloo dana doom ndax xam ngeen li ko ñu ne ko déedéet faal mu nekk yar ki teggin gi muy dugg ndax buy dugg day dugg ndànk buy génn génn ndànk du yàqal kenn te am na ku ñuy wax Baye Cheikh Fall am na bés maam Cheikh Rafal di ko lewtaloo gàtt bu jëm ci sëñ Tuubaa wax na ne keroog bi mu ko lewtalee ba agsi ci yére biir yi muy boutique geeg li ko wër am xelam dali tiis tiis mooy am xelam dali teey nee na mu dali tifli waaye ba mu tiflee ndekete Cheikh Rafal fi mu tëdd ci barak bi dégg na ko ba mu xëyee soo mu woo ko mu ñëw mu ne ko Cheikh Fall mu ne ko Fall mu ko toogal toogaayu taalibe nee na mu ne groupe dal di sukk nee na maam Cheikh dal ne dënd mu yàgg ne ko Cheikh Fall mu ne ko Fall ko toogal toogaayu duur fore mooy ko yare di ko nee mu daal falang ay tànkam nee na mu ne ko Cheikh Fall mu ne ko faal mu ne ko mbaa xam nga ne yàlla sunu borom loo koy gën a jege loo koy gën a warmal di ko gën a jege nee na mu ne ko waaw Fall mu ne ko Cheikh Fall mbaa xam ne yàlla sunu borom loo koy gën a ñàkk warma di ko gën a sori nee na mu ko faal maa ngi koy tub ndax tiflitu démb wala kon yare ki teggin nana xam ne mooy bàyyi faal ndax xaqiqatu ibadallah di dëgg-dëgg jaam ñi nga xamante ne ñoom la yàlla sunu borom nangul seenub jaam ak yàlla al ibadu rahman allazina mooy ña nga xam ne yam suuna danan dox alal ardi ci kaw suuf waaye nag xëw nañ ci doyadal seen bopp waaye way sa xaati bu xamul jaayiluna xaaloo salaaman dañuy daj ñu leen di wax kàddu yi ñaaw ngir jëmee ko seen jëmm yi waaye bu boobaa ñoom leen rek la ñuy tontu muy ñun jàmm rek la ñu woote. lii nag mooy Baay Faal te kii mooy jaam bi nga xamante ne moom la suñu borom nangul ak jaamam te Cheikh Ibra Fall dafa wax daal ne doom laysal xuwatu bi kasaratul fi'li dane innamal xuwatu man malaka nafsi wa indal adabi ma nga ci jëzbul murit daal ne doole dëgg nekkul ci bari xët-xët wala la def nga mer daal ne damay fay mm-hmm. ñu ne ko faal lan mooy doole dëgg mu ne innamal xuwatu man ma nafsi wa inda adabi nee na ki am doole mooy ki ngay mu jekku la te jekk ci mën a waaye nag da lay jéggal ngir jëm yàlla mm-hmm. te lii mooy melokaanu Baay Faal nag dafa tegtal Baay Faal yi waaye nag jëmmam la leen tegtal mm-hmm. ndax dafa wax daal ne kay fa tam nii wa anta binahum ana yow nit ki nooy tabaxekat te fekk yow dañ laa war a tabax dal ne fatlum li ajidi bi fasalim sakkuma rek ba am ma mooy yoral sama melokaan dal ne kay fa tu wa anta salalta ana yow murit bi nooy xalaati te yow dañ laa war a xalaatal mm-hmm. ndax murit kat fekk ma ngi xalaatal boppam ma ngi ñàkk war boromam mm-hmm. moo tax maam Cheikh ca njaareem boori mars ndumba jóg mos na faa romb am waa ji mu fekk muy tabax mm-hmm. maam Cheikh daal ne jees ba romb ko daal di taxaw ne xeexee doom ah, doom balaa ngaa tabax doom da ngay tëppax doom baatin mooy jiitu bâtiment mooy jiitu bâtiment balaa ngaa tabax doom da ngay tëppax ndax maam Cheikh dadaa wax daal ne doom fa in kuntum taza tijaratin fas ali naara li annaha yursi barid an daal ne doom kuy root kat tafee bul tànq di tuur ñu ne ko ndax fàllu ko war a mën a loolee kat li annaha yursi barid an ndax day yàq sa bénéfice. te am te am njàngaleem li ci gën a neex mooy njàngaleem li mu lay wax ci nature bi lay doon ko du ku yàlla bind. te am jàngaleem damay faral di wax mooy jëriñ jullit ñi ndax maam Cheikh dafa wax daal ne doom génn naa ci àll bi. di dox ba gis ñetti gunóor ci laa yeesale sama tër bi xam ne sëñ bamba yi mu takk ku yàlla bind dane doom gunóor bu njëkk bi kat mooy yamb ndax maam Cheikh ne na bi ma gisee yamb ci laa xam ne kii moo yor xam-xamu jamono ndax ne na yamb kat fu mu dégg xet gu neex dem fa loolu nag mooy ku sàkk lu baax kuy sàkk lu baax foo dégg lu baax dem ca ndax da ngay yaakaar ne boo fa demee dinga am loo mën a jariñoo ci sa biir waaye mu ne doom yambkat daa am cat ñu ne ko faal luy catam mu ne ah doom dañ ko yarut dañ la ñàkk gin ko ñàkk yar moo tax bu nit soxlaa dara ci moom da koy xirtal mu daw mu jël la mu soxla ci moom te du ko tagg du ko neexal dane doom góorgóorlu leen uti yar teggin dane doom ñaareelu gunóor ba ndax xam ngeen ko ñu ne ko déedéet faal mu ne mooy nguri dane nguri kat moo lay fekk sam néeg wala sa kër mu dugg ci biir kër ga mbaa ci biir néeg ba tabax fa néegu boppam dëkk ak yow te doo ko wax dara mm-hmm. daane doom ndax xam ngeen la ko may ñu ne ko déedéet fal mu ne yare ki teggin ga muy dugge mm-hmm. ndax buy dugg day dugg ndànk buy génn génn ndànk daane doom nguri nag yare ki teggin gi mu am moo tax yàlla sunu borom wàllu ko jikkoom muy dekkal mm-hmm. ndax bu nu fàtte nguri moo mën a fekk sax bu dee wala weñu dee mu dugal ko ci paxam di ko déformer ba mu doon nguri ni moom sunu borom jox ko gi war a nekk ci nguri mu def ko ci moom ñu daal di ànd naaw génn dem mm-hmm. kon nguri loolee a doon ci sunu borom mm-hmm. ndax suma awrasna alkitaba izibi astafayna min ibadina mm-hmm. wa minhum zalikum li nafsihi wa minhum muxtasirun wa minhum zalikum bil xayraati kon nguri lii la doon ci sunu borom waaye maam Cheikh Rafal ne nag ñetteelu gunóor ba kat moo yées ñëpp te moo mat a moytu ñu ne ko Balla Fall mu ne mbërëngaan ndax ne na mbërëngaan kat foo ko fekk kat ci ab sobe rek tërbiyewul la mhm. fur la fekk ci ab sobe rek ngay nekk dalim mbërëngaan ci ay dem joor nga koy fekk mhm. neen mu taxaw di ko defar ba ko defaree ba mu mel ni bul mu juutu di ko bërëng ak ni juutaay métte daan dem góorgóorlu leen kat ngeen uti yar ak i na mhm. kon Cheikh Ibra ni mu jàngalee taalibe te nekk ci ay téere dafa bari ndax daana wax daal ne taalibe kat da nga yor ji koy xaj ñu ne ko faal xaj mu ne waaw doom ndax xaj kat du xër ba gaañ borom dana daw ut si ko dana daw di ko wër di wane ne bëgg na ko waaye nee na du tax mu dal ci kawam dal doom ab taalibe bu xëree ba dal ci kawam royul xaj dane waaye xaj nag jikko yi nekk ci moom lu ma taroy la de ñu ne ko faa leen jikko la mu ne lu mbooloo neex neex ak lu mu bari bari bari amul yitte ci kudul borom ndax saa bu borom jógee rek mu jóg topp ko waaye léeg nga gis am Ibrahima Mbodj ànd ak ab sëriñ ci jataay mhm. jataay ba neex lool añuy bëgg a génn ak boisson yeeg yooyu sëriñ bi dañ ne bëri na ah damay dem bu ko defee ma naan sëñ bi moom moom daal bàyyi ba yu neex yi kii rek ah moo tax Cheikh Ibra Fall moom lan moom dañoo dañ koo war a roy ndax ku nu war a roy la. surtout surtout damay wax ni ñun ñun Baay Faal yi dañoo dañoo am loo xam ne kenn am ko ndax ñun rek ñoo fi mën a roy koo xam ne. lim am jigéenewu ko fenn. Mm-hmm. ndax euh, leen ndeysaan lu suñ bàyyi bàyyi njëkk Jóob daan wax yàlla na ko saa borom dolli yërmande te taas ko ci bu gisee la ko sànqama Serigne Cheikh Fall. Mm-hmm. daan wax naan fi ne senegal boo fi nekkee bëgg ñu naw la faaw nga tubaab tubaab. Mm-hmm. waaye boo fi nekkee bëgg ne kii am na diine faaw faaw nga nar naar waaye xolal xoolal Baye Fall. maam yow yow Baye Fall rek moo sañoon doon habillement bi mu am bi muy sol li muy sol yépp Sénégal gii la bawoo. te ki ki ki fi indi Cheikh Ibra Fall keese la mm-hmm. royuñ keneen ci lenn lépp moo ko fi indi mm-hmm. te te comme li nga wax sànq ci ci taalibe mm-hmm. mu jàngal jàngale jàngale ci ndax man damay wax damay wax ne waxi waxi Cheikh joo xam ne mën dama koy xalaat waaye daf may def aal mooy wax ji bi mu naan jirim nekkul ci ku ne ñàkk ay waajur waaye jirim mi ngi ci murit sadeex bu ñàkk ay yar teggin jërim dëgg te loolu li ko Cheikh Rafal indi dafa bari ndax jërim dëgg nekkul ki ñàkk ndeyam ak baayam ñu ne ko faal kan mooy jërim dëgg mu ne jërim dëgg mooy murid sadix bu ñàkk kilifaam dali waxaat dal ne jirim dëgg nekkul ki ñàkk ndeyam ak baayam ñu ne ko kan mooy jërim dëgg mu ne jërim dëgg mooy ko ñàkk yar ñàkk teggin ñàkk xam-xam kon Cheikh Ibrahima Fall Baabul dina li mu indi loolu rek ma loolu dong moo ma suñ maamun ñu jàll ci yeneen question yi. waaw moom kay jotaay bi buñ sa yoon day gën a yaatu sax waaye suñ suñu cameraman mu ngi ñuy wax ni li des ci minute yi bëreetul léegi kon nag ñuy mosal ñetti minute rek ci diggante maam Cheikh Ibrahima Fall ak gàmm buñ buñ noppee suñ Fall daal di tëj nag ñu daan gàmm ndax jërëjëf sëñ Mouhamadul Mamoun diggante Cheikh Ibrahima Fall ak gàmm da diggante bu yaatu ndax bi nga xamante ne nekk na ndànd ba jóge fa dali ñëw dëkk bii di cees waaye ba muy ñëw ceesit dafa fekk jàmbaaram ju mag ja mm-hmm. di kii nga xamante ne mooy sëñ Mbaye Lo ndax maa ngi nuyu tey ziar màggal gu ne suñ kër la koy defee màggal Tuubaa bu ne. dëgg la suñ daal maa ngi nuyu bu baax di ko ñaanal la nga xam ne moom la maamam ju baax de nekkoon rek saa borom saxal ko ci. te yàggal ko fi nag ba lépp lu mu naan rek ngir liggéeyal ko maamam ja saa dolli ko kàttan ba matal lépp waaye diggante Cheikh Fall ak gàmm. Mhm. Mhm. ndax ndax Baye Fall nag bu ñu fàtte ni Thiès la ñuy gàmm. Thiès la ñuy gàmmoo. Mhm. ah te danaa ci ñëw ndax sëñ Mouhamadul Mamoun. nanu xam ne Cheikh Ibra Fall Thiès dëkk bu ko ñor la. ndax la mu jël sëñ Mbaye Lo ak kii nga xam ne mooy sëñ Cheikh Ndiaye Bayo. Mhm. yabal leen fee ca cees mhm. Thiès dëkk bu ko ñor la. te maam Cheikh Rafal dafa wax daal doom ba may liggéey sëñ Bàmba kat ëmb yema fa ëmbe mhm. fu ne bëcc naa ko fa. waaye dara mësu faa feset. dal ne kees rek kees. fa nekk dara feset fa. muy dara génn ca muy nga denc sab denc. ba ak sa ci benn bërëb mu mat a utiliser nga daal jël ca la nga soxla. daal di ko. barab boo xamante nag liggéey bi Cheikh Rafal fasan na fa fu mat a dem la ndax maam Cheikh danaa wax dane doom kees kat mooy sama pekk ndax bu nu fàtte kat ni mu daan gàmmoo ndax maam Cheikh bëccëgu gàmmu bu masaan a xëy danaan woolu mu xaddamu tiijaani ak seen mbooloo daldi woolu waa canaba ak seen mbooloo daldi woolu waa kër sëñ Bari Njëgën bu Cees daldi woolu laayeen yi bu ñëpp ñëwee mu ne ah jëy sunu kaamil kat laa soxla wax na ni buñ ko jàngee ba jàng xatma bi ba noppi mu ne ah ana kang fóori Baye Fall yi eh, ñu ne ko ñu ngi nii kat Fall mu ne ah doom yéeg leen ci kaw garab yi mhm. ndax Baye Fall kat lu muy def looloo war a gën a jafe li keneen di def mhm. ngeen jàng jëy sunu kaamil bu Baye Fall yi yéegee ci kaw garab yi ba jàng jëy sunu kaamil ba def xat xatma ba noppi maam Cheikh door a ñaan nga xamante ne looloo tax nga dégg ñu ne kaamilub kaw ak kaamilub suuf ci biir kër Cheikh Ibra rek la am. keroog démb rek maa ngi doon sama caméraman bi naa ko danga bëgg bu bu jot abaa ñu leeral ci kaamil kaw bi ak kaamil suuf ndax mun loolu moom dama yëm ndax man Baye Fall rek laa mos a gis ñu ne dañuy jàng kaamil kaw ak kaamil suuf kaamil boo xam ne ci kaw garab nga yéeg di ko jàng loolu moom yaakaar ko ndax ko ndax Cheikh mu Fall Baabul Muridiina moom saa jëf ju jóg rek day xool la ca gën a kawe te gën caa jafe mu daal def loolu ndax dafa jàpp ne yàlla sunu borom kat kenn du defal lu ndaw hmm. kenn du ko defal lu ndaw hmm. te Cheikh Ibra damay faral di wax alxuraan juy dox ci kaw suuf mooy Cheikh Ibra ndax li ëpp ci jullit ñi bu nu fàtte ibaadaat yi rek moom la ñuy def waaye nag la alxuraan wund ak jëf ja loolee Baay Faal yi ñoo koy def ndax maam Cheikh dafa wax daal doom alxuraan kat wax la joo xamante ne jëf lay tegtale mhm. daane doom wax juy tegtale jëf nag ku jëf wàcc mhm. daane doom tënk naa leen kat ci jëf ji kon jëf moom moo doon loo xamante ne lu mënta ñàkk la mm-hmm. ndax yonent bi nga xamante ne mooy sallallahu taala alayhi wa sallam mm-hmm. nga xam ne mooy gën gi mbindeef mm-hmm. ba mu dikkee rek alxuraan da koo tegtal jëf waaye nag jëfu gaa yi gaa yi baax yi ulu albar laxat kaana xasiyatin fii idratan bihi ulu albar kon jëf moom daa doon lu mënta ñàkk moo tax Cheikh Ibrahima Fall bëgg mu tënk ci ak njabootam. jërëjëf Mamadou Mamadou. jërëjëf suñu Ibrahima ndeysaan lii moom daal suñu xol sedd na kon dañuy daal di jox Sëñ Fall mu daal di yëkkati tur yàlla bu ko defee ñu daal di tàggatoo Sëñ Fall fal njaga laa ilaaha illallah Seex Ibra laa ilaaha faal illa laa Seex faal jaga faal illa laa laa لا محمد رسول الله رسول الله فلجأ لا إله فلا لا إله إلا الله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 murit bi yëg ne murit la sëñ Masamba Diop Sam nelaw na ca Daaru Sam sëñ Tuubaa Xaadim Rasul daal di xëy daal ne murit yëpp nañ ko dem jaale ji bi Cheikh Rafa rëppatalee ay fasam ba jub Daarul Moxti am ndaw lu ñëw daal di dab ko ne ko Ibrahima sëñ Tuubaa kat nee na bul jàll Daaru Sam ndax boo fa àggee kat mbindeef yëpp jiblu ci yow ndax ruu mbindeef yàlla nopp ca la Cheikh Rafal Bal Muridina daal di la loxo yi ca kaw. daal di ma yaram mbay ah doom damaa liggéey as kat ba mu may ma leen ma liggéey as gor ba mu fay ma leen ma liggéey as gor ba mu far jaay ma leen ne ko yaaram mbay mu ne ko faal mu ne ko ah demal ci dëkk ba te nuyul ma Cerno Ibra Faati ci la dugg ci dëkk ba dal di nuyu borom Daaru Muxti bi mu ko nuyoo kat ne ko Cheikh Ibra Faal mooy nuyoo mu ne ko boo demee nee ko bismillah bi mu agsee kat daal ne maam Cheikh Ibra borom daaru nee na bismillah neen mu ne ko bi biñ ko waxee borom dara moxti loolu def ko aal mu daal dugg ci biir néegam mm. dal di génne sayu jaasi bët ci ko ci ëtt bi mm. daa leen ku mën a jël jaasi na jël ñu xeddi sàkket yépp ndax Cheikh rafal xam naa li may laaj mm. yoonu yàlla sunu borom kat la may laaj te moom Ibra Fall fu mu aw àgg ci boromam oh. kon nanu xam ne saabu àdduna yëngoo nag nan ko xaar ca dal ga ndeysaan li tax ma leeral nii dafa am yëngu-yëngu gu amoon jamono yi passé mm-hmm. te yëngu-yëngu yooyu doon lu jara wattandiku mm-hmm. ndax mag ñi kat rafetal nañ démb tey sóori ñëw te nag loolu rafetal dara du ko yàq kon ñoo ngi am mbégte bu baax ak kontaan bu baax a baax baax ci émission bi tey sant bu baax a baax a baax ak di gërëm mboolem mbokki murit yi nga xam ne ñu ngi teewlu tey nuyu bu baax it koo xamante ne kenn la ci man muy sëriñ Serigne Manioura Fall moom sëriñ Cheikh Fall Mbawar di sama xarit lool waaye nag di sama bàyyi daara ci lii may def. tey siyaare bu baax Serigne Mame Cheikh Fall. moom Serigne Talla Fall am solo di sëtu Cheikh Ibrahima Fall Babal Mouridina mm-hmm. waaye di xalifa ak Serigne Amsatou Fall moom moom Cheikh Ibrahima ndax Serigne Amsatou Fall moomu ñoo ngi ko tuddee Serigne Amsatou Jaxate mm-hmm. di doomi mm-hmm. ak kii nga xamante ne mooy Cheikh Ibrahima Fall Babal Mouridina waaye noonu ñuy siyaare bu baax kii nga xamante ne mooy Serigne Cheikh Ndigal Kala Fall ndax moom nag fa ko bàyyam bu baax bi tegoon muy Serigne Cheikh Fall borom Ndigal mosu fee jóg te mbégte murit yépp la mbégte taalibe bi yëpp la. Hmm. te na xam ne kat lépp lu mu am ci biir kër Cheikh Ibrahima Fall Babou Mouridina. Hmm. du sens mérite la. ndax ndigal kala doxinam lu murid yëpp xemem la. Hmm. ndax kii nga xamante ne mooy soxna Fatou Kala Guèye. da koo liggéeyal ci kër Sëñ Cheikh Fall Baye Góor. baayam di Sëñ Moustapha Fall Fatou Kala. liggéeyal sëriñ Cheikh ndigal ci kër sëriñ Cheikh Fall Baye hmm. moom mu ñëw nag tege ci yoon woowu ndeysaan kon ñu ngi koy ñaanal gudd fan bu hmm. ànd ak wér wér di ñaanal bu baax sëriñ Cheikh Fall borom ndigal ndeysaan hmm. yàlla suñu borom yàggal ko fi lool te mu ànd ak wér ndax damay faral di wax bu ne roy Cheikh Ibrahima Fall borom muridina xel yëpp dem ci sëriñ Cheikh Fall borom ndigal waaye bu ne niroog sëriñ niroog ki nga xamante ne mooy maam Cheikh Ibrahima Fall ci zaahir ak ci baatin mooy suñu seex ndigal. ndax ku ñedd saw des. Mm-hmm. nga wàllu ko sa jàngor. Mm-hmm. te Serigne Cheikh Fall boobu ndigal. Mm-hmm. dafa ñedd Cheikh la. moo tax Cheikh la wàllu ko jàngor. ndeysaan ndeysaan. wasalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakatu. kon kon dañuy jox Serigne Fall mu tàggatoo rek Serigne Fall. waaw man am naa wax moom lu si man moom dafa bëri. waaw maa ngi nuyu Serigne Thierno Ndiaye Sikor la. ak Serigne Fall Dieng ak Serigne Modou Ndiaye. ñun ñooy sama jëwriñ si lii. waaw te ginnaaw yàlla moom fu àgg ci turu yàlla bi hmm. ñoom la hmm. di sant sama ñaari waajur di ñaanal suñu borom yàggal leen hmm. ñu dem ba fay leen euh, euh, maam li nga xam ne maam euh, jël nañ koo def si ñun lépp saa borom dimbali ñu man fay leen ko barke maam Cheikh Ibrahima di ñaanal waa xidmatu maam Cheikh Ibrahima Fall di ñaanal saa yàggal leen loolu te wéral leen ba liggéey bi ñu am ci lu kawe suñu waaw ndaxte liggéey boobu rek mooy ñor waaw jërëjëf sëñ Fallou jërëjëf sëñ Ibrahima di leen sant bu baax ci teew gi ngeen teew fii di wax ni bëgg nañ lool waaye nag dañuy ñaan ak a gën a santaat bu baax ba saa borom wéral sa baat ba li nga bëgg ci turu yàlla bi saa borom defal la ko fa ñuy dégg ponkal la saa borom yëg yóbbu la fa bañ la fay dëgg ci doolee maam Cheikh Ibrahima Fall maam Cheikh mën na ko te ñoo ngi ko koy ñaan te yaakaar nañ ni dinañ ñu ko defal waaye sëñ Ibrahima it ñu ngi lay ñaanal bu baax ba nga xam ne fu ñuy dégg gaayee ca kaw bëgg nañ laa dégg fu gën a foofu ndax ñun nag dañoo bokk kër Cheikh Fall te amuñu lu Cheikh Fall te comme ni nga ko waxee rek ñun moom lépp luy wane liggéey Cheikh Fall bi dañ luñ rek danañ ko ci def donte ay ndaw lañ nag tey góorgóorlu ci loola waaye nag dañuy santaat bu baax tey ñaanal sunu sëriñ sunu wasila sëriñ Cheikh Fall ndigal ibnu Cheikh Moustapha Fall Fatika la mu yàgg fi loolu te ànd ak wér waaye noonu la ñuy si am di Fall moo di mbedd mu yàgg fi loolu te ànd ak wér waaye di ñaanal sunu suñu suñu jàmbaar ji ñu xam ne daal doon suñu ceefal baay bu góor ko sëkk mi maam Cheikh Fall ndigal ndax moom jàmbaar lool ci waar wi waaye dañuy ñaanal suñu fàll mu waaye doon lañ ko ñaanale si Moussa Mbar ñoom it ñoo xam ne seen doxalin ñëpp ko rafetlu ci yoon wi waaye dañuy dañuy dañuy jaaree foofu rek di nuyu sama sëriñ sama xarit Sérif Axsan Fall laa te moom sax war nañoo am am ndaje waaw waaye nag di nuyu sama ñaari caméraman yi sëñ Habib Thiam ak alaaji Biya yi xam ne boobu léegi ñu ngi ànd ak ñun ci plateau bi waaye di nuyu kilifa kër gi El Hadj Fallou Sylla waaye di nuyu Baye Fallou Gala Sylla it yàggal leen ba liñ bëgg ci kër gi saa borom defal leen ko waaye di leen fàttali ne ba tey yéen a ngi ànd ak Assalaamy TV waaye lëkkaloo koog rajo bi Assalaamy FM 99 point 0 jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatulah taalaa wa